yoo xam ne yàlla sunu borom moo ko indi ci réew mi te nag bu ko fi bëggee jëlee dana ko fi jëlee waaye nag askan wi nga xam ne ko dëkkee di ko tooñ mun ta ñàkk léeg-léeg yàlla sunu borom di leen di teg finna ba tey moom sëriñ bi daan wax ne ñàkku na wax na ay njabootam ñu daal ñàkku ak ñi nga xam ne ñooy ay jege ñaale ma yéene kaay gi nee sëriñ bi li mu wax leer na nee na Sénégal yi dem leen ngeen ñàkku ci te nag bàyyi nag vaccin yi nga xamante ni fi nekk leen lu nekk ngeen bëgg ko wax ci ñàkku yi sëriñ n nee na ngeen dem ñàkku ci moo gën a am solo nag wax ci ba tey ci biir journal bi di réew mi quotidien ak enquête ak les Serigne Babacar Sy Mansour yàq na musiba ak mbelengaan ñi nga xam ne ñooy député yi ndax nee na député yi nekk assemblée nationale di caaxaan di saagante ak di xeex rek la ñu fa nekkee te nag li nga xam ne moo waroon député yi maanaam kenn ku nekk dem ca gox ba nga xam ne maanaam fa nga dëkk jafe-jafe yi nga xam ne moo fa nekk nga jiim ko indi assemblée nationale waaye nag au lieu que député yi def seen liggéey maanaam par parloo la ñuy def am na député yoo xam ne dañuy gis dëgg bëgg koo def fenn am na ñoo xam ne fenn la ñuy gis bëgg koo def dëgg te rafetul jaaduwul yéen Serigne Babacar Sy Mansour wax na ci li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi ak li nga xam ne nag mooy sàngara si ñuy jaay xale yi ba ci biir yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Serigne Moustapha Sy daan nay def ab discours moom tim ci li nga xam ne mooy tam xarit gi ñu génn daan nay yàq musiba ak mbelengaana Macky Sall ak Antoine Diome mi nga xam ne moom lañ dénk kaaraangi réew mi ndax Serigne Moustapha Sy moom nag dafa wax ne dafa am ay service secret yoo xam ne maanaam ñoo koy topp loolee moo tax mu daal di dànkaafu ministre bi ñu moom Serigne wax ne Macky Sall ñetteelu mandat la bëgg gàllankoor maa koy jëlal sama bopp samay matukaay dinaa ko ci jëla ba tey ci yéen kaay gi di Dakar Times ak Les Échos Serigne Moustapha Sy moom nag daan nay annoncé li nga xam ne mooy ab coalition boo xam ne moom ak Ousmane Sonko ak waa PDS ak Khalifa Sall yéen kaay gi di Les Échos nee na Serigne Moustapha Sy mbaaru dafa am lu muy waajal ndax dimanche bi nga xam ne moom la ñu dëgmal daan nay convoqué élément sécurité yi ak ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ca Tiwaawoon yéen kaay gi di L'As nee nag ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum wér gi yaram gi jamono ji mer nañu ba maara day taal yi moo tax am na ab préavis de grève boo xam ne daan nañu koy dugal yéene kaay gi nee na mbootaay gi ëmb médecin yi ak pharmacien yi ak dentiste yi jamono ji nag ñoom ñoo déposé ab préavis yéene kaay gi de la Soleil nee na mémorial bu Gorée Almadies liggéey ya danañu ko doora décembre 2021 jàpp janvier 2022 yéene kaay gi di Walf Fadjri xëy na ci njëg yi nga xam ne jamono ji ci marché bi dafa cher ba maara détaillé yéene kaay gi di Rewmi Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu ci waaxi Mauritanie yi am na lu toll si ñeent fukk ak juróom-ñaar cay yoo xam ne ñàkk nañu fa seen bakkan ci biir ndox mi am na ay sénégalais yéene kaay gi gi de Le Quotidien ñu xëy fekk fa Lamine Baraka yi bu APR directeur service national de l'éducation information pour la santé nekk ci ministère bi ñu dénk wàllum wérgu yaram ke wax na ci lu jëm ci wàllum élection locale yi ak ville bu Ndakaaru nee na Abdoulaye Diouf mi ñu dénk wàllum wérgu yaram ke bu ñu waxante dëgg mooy profil bu baax bi ci ville bu Ndakaaru yéen a kaay gi di direct news nee na bi nga xam ne moo ëmb opposition bi soo muy li a kaay gi di source nee na la pour Léopold Sédar Senghor journal bi nee na bëri na suuf soo xamante ni daal coow la bëri na fa am na nag lees waxul maanaam am na lu lëndëm lool am na lu lëndëm loola ci juróomi hectare yéen kaay gi di Walf Fadjri nee na taw yi nga xam ne taw na ko moo tax banlieue bu Ndakaaru jamono ji kenn munta dem kenn munta dikk askan wa dañoo tagga témbe sonn ba mara détaali yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na camion malien yi at mu jot danañu am lu ci deux cent cinquante trois milliards ko liggéey diggante Mali